tiis dal di tàbbi ci kawam moom waykat bu mag bile ñëpp xamoon ko ci Lemzo jamono muy euh, Fallou Dieng waykat bu mag bile nag daal di nay ñàkk way juram bu jigéen muy tiis boo xam ne daal di nay tàbbi ci kawam ginnaaw information yi nga xam ne moom ci boppam sax moo ko jot a fësal daal di koy posté di yëg yëgle ni ñàkk na way juram bu jigéen bi nga xam ne moo nekkoon ci jamono doon ko gunge ci léppam ci ñaan ak lépp loo xam ne daan na ci mën a dugg mu nekk nag lu metti loolu lu tàbbi ci kaw Fallou Dieng